ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ci ministère la santé l'action sociale tey bésu alxames fukki fan ak benn ci weeru février bi ñu nekk ministère la santé l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci ñaari junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukki test yi def ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci.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 ñaar fukk ci Kaolack fukk ak juróom-ñett ci Dakar Plateau fukk ak benn ci sàkkal juróom-ñett ci Diamniadio juróom-benn ci Diourbel ak Guédiawaye juróom ci Diofior Kébémer ak Xombol ñeent ci Dara Mariste Ouest Foire Popenguine Tivaouane Touba ak Vélingara ñett ci Almadi Koki Fatick HLM kaprin Kédougou Kër Massar Kolda Louga Médina Mermoz Ndofane Ouakam Pikine Rufisque ak Louga ñaar ci Mberkelaan Daaru Musti Yanguineo Liberté 2 Liberté 6 Mamel ñaari tali Nord Foire Point E Richard Toll Scat Urbam Yoff ak Ziguinchor benn ci Amitié 2 benn tali Bignona Cité Aliou Sow Cité Biagui Diamaguène Dieuppeul Grand Yoff Grand Dakar Gueule Kidira Mékhé Ngor Parcelles Assainies Passy Pout, Sacré-Cœur 3, Salemata, Saréa, Sicap Baobab, Sokone, Thilogne, Yarax Yeumbeul ak zone A ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn malade ñoo xam ne ci ñi entré woon ak ñi topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bi ci yàlla ànde juróom fukk ak juróom-benn ñoo nekk réanimation fukk ak ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bàkkan su démb alarba fukki fan ci weeru février yi mu nekk ñeneen ñi des ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaabu njëkk ba senegal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak fukk ak ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñeent ak juróomi ak juróom fukk ak juróom ak juróom-ñaar wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ak ci malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana te ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi yàlla may leen tànn ba ñu génn ak jàmm ministère la santé de sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen i njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seeni i ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bàkkan di raxas seen i loxo saa su nekk ndox ak saabu walla di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité pour ngir doomu jàngoro yi bañ leen a topp di teel a dem dispensaire wala hôpital bi leen gën a jege wala di jokkoo ak seeni i docteur saa bu ngeen nemmee ko yaram ko yaram bi dafa xaw a sutante malade yi nga xam ne aussi dañoo dañoo ànd ak feebar yi te ñu bàyyi leen ci biir kër yi nañu sàmmonte ak digle yi balaa ñuy euh, wala seeni i jegeñaale ministère de la santé et l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm